ay jaaseeg ay jaaseeg lu ne la gars nervi yaa nekk nii nervi Alioune Sall ñooy xeex ak waa amee mais ay jaaseek ay paaka lu ne fi génn gisoo gisoo waa gis ngeen ay jaaseek ay paaka ay mbolde ay mboldeek ay jaasi ay paaka lu ne la gaa gis ngeen nii lii dafa ñaaw politique jarul lii góor na Sëriñ Bamba politique jarul lii fii ku ci gaañ yaay per ku fi rey yaay per parce waa amee dara ñoom lañ dàq yi ñu dem taxa yi fële ñoo waruñoon jaar fii sax en live Guédiawaye bundu kër Alioune